awasanillahu mina shaytaani waxaadali mën a fiyan awtaani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi ziar ñep ñu nek ci réew mi ak ñi nek bitim réew télé vendredi 26 juillet 2024 waaw da daloon taw nak gis ngeen tata bi waaw heure bi nak il fait 4h du matin ken fonctionné wol gis ngeen mbedd mi dafa am nu leen bëgg woon am na fo xam ne mom da ngay dem fekk leen ñi fonctionné waaw kër Cheikh Béthio kër Soxna Bambi Médinatoul Salam il fait 4 heures vingt du matin instant yi nii ci ñëpp tàkk waaw togg ajjuma yi heure bi lañ koy taal jëmale mu leer ñu yóbbu ko te damay nekk génn fi tay ba mu leer inshallah waye nak bu len faté comme lu ma ko waxé won la fois passée guddi gi lañ fi nekk dagg soble yek waaw installation beeg yoy waye heure bi nag la tal moy mooy togg ajjuma yi tous les vendredis encore une fois ajjuma bu jot lañ koy def mais tey dafa am lu mu leen bëgg woon na ci organisation bi ak wàññi ni muy demee waañ bu nekk ak turam te turi xasida yi la yor nag ma faatihul bichri ma faatihul jinaan tux fatu jaalibatu maraaxib jës bu mooy xibbu mu xaddimaat maanaam waañ bu nekk ak turam ak lañ la jox pour nga togg ko ma leen tamit encore une fois li jëm ci daara yi ak ci hôpital yi prison yeeg fépp fépp fépp ci réew mi añ lay doon ak reer yaakaar naa ñoo ko gisandoo. ak variété bi comme ni ma leen ko waxee woon bu ñu toggee tey petit pois vendredi ba ca topp ñu topp macaroni beneen vendredi ba ñu togg tufe ainsi de suite waaye chaque instant mu añ bi ceeb lay doon moo xam bu xonk wala bu weex sak àjjuma sak àjjuma tous les vendredis muy tàng muy sedd bañ ko tàmbalee ba léegi mosuñ koo tëbal te tey sax. da doon ci wiccal waye bo gisee gaay yi ni ñu songee liggéey beeg ni ci nekké mat mi saxaar bi juk xalé yi di jaawante mag ñi nekk ci oh ay ko gis lima gis mané ku féké lima féké bo moy moytul te di nga wax lu raw li wax bu dee yalla rek degi tax deug deug deug liggéey Serigne Touba ngi ni mané deug deug œuvre pour Dieu à travers les hommes ngi non xol sunu yaay boy bobu ma nga ci liggéey ba tranche d'âge yépp nga fi fekk te aussi la fois passée maa ngi leen doon wax ni fu ne la nit di jógee ci Sénégal waaw ci région yi ndekete sax waxuma la ci dëkk-dëkkaan yi rek waaye nit day jógee ba bitim réew tugal la wax de États-Unis France Allemagne uniquement pour ñëw jàpp ci togg ajuma yi te nag loo ci xamul tey vendredi 26 juillet 2024 benn mbokk taalibe moo jël togg ajuma yi benn mbokk taalibe maanaam li ngeen di gis nii yëpp ak li ma leen di waaj a ndax maa ngi ci togg bi ñëwaguma ci beñe yeeg laax yeeg maanaam jus yeeg boisson beeg dàll yeeg ndox meek médicament yeeg maanaam du ñu bàyyi dara surtout période nawet bi ma leen di fàttali nag saa su nekk ndax ñi mën def lii yaakaar naa bu nu bëggoon ñëpp yëg ko ñëpp yëg ko waaye nag day baax léeg ay leeral ndax liñ ci jublu nii dañu bëgg rek nit ñi xam ni vraiment lu baax mu ngi ci réew mi te mën na soñju ñeneen nit ñu ciy góorgóorlu ku nekk fa sa doole yam rek nga defé fa nak li réew mi yep lañ koy defal nak daara yi hôpital yi prison yi ku nek sa mbokk nga fa des milliers de jeunes ci daara yi des milliers de prisonniers ñi tawat manam muy ben fan waxuma la tawasul yi moy ci bu ma len waxon ci bu ñorul bi suukar ak koppar bi ñu yob ci daara yi nga xamantene presque dina len mëna yor weer waye sak aljuma nga yobul len mëna ko wax buffet naw buma nexé tuddé ko sax bi fi royal ndax ni ñi togalé bour wala borom daraja traiteur yi dem ci xew yi nu ko raw gën ko sel lañuy toggé yi ndax déglu leen dama leen di indi lay léral yu lér naññ sax gis ngeen ni mu léré waaw quatre heures du matin bu légui ñoo ngi ci maintenant il fait 7h digënté bi ñuy sour ak maanaam yeggale yenen finition yi ma ñew ci li ma doon wax gis ngeen togg yi bu noppé ba yi génne ko ba rangé ko pour wala ni maanaam cër lañ koy jox du kuñ jox mën a rek nga def loola neex rek teg fa dem sa yoon déedéet waañi ni mu yoree turu xaside yi noonu la amee kuréel bu nekk ak lañ la dénk léegi nag dafa am benn concours waaw concours bu positif sax boo xamante ne day tax mbokk taali bi kenn saa su nekk di bëgg sa cin dàq moroma ndax dafa am ñoo xamante ne bu ñu noppee ba yobbu ko nonu gis ngeen te diggante biñ koy yobbu ak diggante biñuy defar fii la manam day melni fi fii kenn mosu fee toggee buñ ko yóbbee nak ba takko ba installé ko ñi nga xamante ño xawa jégué ño jege ñooy yenu nii yóbbu mais amna ño ñoo ci ni nga tek ci sareet bi dox ak mom yobbu ko fi nga fa lañu dajalé dajalee bi fa lañ kay sayto fa la nak chef cuisinier yi nek professionnel yi nek fa xama gaay lolu pour lan la di ñam boole bu nek war ko noté te note bi la mais déglu li tax ma ne la buffet royal ko ku amoon moyenne quinze sur jëm kaw maanaam sa togg yow du génn fii maanaam yow waañ boobu du ñu atteindre seen objectif mooy maanaam fexe ba mu dem ci daara yi ci hôpital yi ci prison yi. xoolal ma fruit yi te damaa fàtte togg yi du am bion maanaam mas ak ñoom jumbo non dafa araam ci carré bi du fi dugg maanaam épices yi boissons yi sax du am boisson gazeuse. mooy des jus de fruits lay doon muy respect bu extraordinaire bi ñu yor liggéey bi am envers ñu ñu ko war a jox xoolal ma beñe yi sax laa wax jus naturel yi ñuy defar bisaab beeg yooyu maanaam dañ ko utal chambre froide boo xamante ne buy génn waxuma la sedd de mais dafay congelé ngir diggante bi balaa ñu koy séddalee muy wàcc ba balaa mu yegg ca daara ja bu yeggee sedd guy. waa xeetu perfection bi ak saytu bi d'habitude ci buur yi lañ koy gis. wala ñu ñuy tuddee borom alal wala ay kilifa wala ay borom yi daraja waaye nga defar ko ba noppi war ko jëmee fan ci ñan déglu soxna si nee buggul dégg turu vulnérable bëggul dégg les nécessités buggul dégg ñu koy teewoo rawatina nag ay néew ji doole nee na déedéet kenn amul doole sunu borom rek am doole ci jaamu yàlla yi la jëm gis ngeen. ñu koy accompagner yaakaar naa ni loolu moom dem gis ngeen ko léegi ma ñëwaat ci ñi nga xamante ne ñooy am suba moyen parce que loolu daf maa intéressé tey soxna gis ngeen ni ñuy dossier ñooñu dañ leen di maanaam wax lan lañ manqué le wala lan la ëpp wala dafa cramé wala dafa nangam léegi nag xéwal yooyu nga xam ne du dem ñoom ñoo koy xéwal waaye yow mi ko doon togg waaj mi ko doon togg dañuy am sas wu rëy ndax ñëw fi ci guddi dagg soble daj fi liñ ci daj pare yóbbuñu ko léeg-léeg nga gis jékki-jékki rek groupe bu tàccu ñu ne lan la ñu ne ñun am nañ 18 wala am nañ dix-neuf te lépp pour nongo daar yi lépp pour ñi nga xamante ne. ñoo nekk ci prison yi maanaam jaamu yàlla yi. quel respect quelle considération gars yi lii rafet na waaye macha allah waaye gàcce ngàllaama soxna de Saliou ndax dégg nañ ci Baye Ndiaga jóg mu ne Cheikh Ibrahima daan wax ni. ay ba ma ne àndal ak sëñ daa lu ma ko laaj dama ko ne lu gën a gaaw yóbbu nit ci yow mujj jamono. Hmm. ne yalla ma ko waxal ci làmmiñam mhm. yàlla ne ma mhm. joxe ñam ak nangu tuuma mhm. daan ne moo gën ndax dem ci yalla mu jup jamono du yom way buñ la tuuma la rek nga dem ci ci daan ne joxe ñam ak nangu tuuma benn borom xam-xam dafa na ma Seydi Bamba mu ne ko nam mu ne ma Sénégal mën nañ la ñaanal yalla waye duñu nangu mayu ko yalla ma ne ko comprendre ma mu ne ma exemple mën na la ñaanal yàlla la yàlla may alal yàlla la yàlla may alal yàlla may la alal gu bari ñu ne day jaay drogue wala ñu ne da koo sàcc wala ñu teg ci yeneen maanaam mën nañ la ñaanal yàlla waaye du ñu nangu may ko yàlla muy dëgg bu wér peng nag mais tey dafa am ñaari tout tànk yu ma gaañ déglu leen lii. aman يا ذا الوجود يا ذا الوجود في وصولي بلا وفولي بجنب سولي جميل